laata mm. ñuy ak mm. CRD ak réunion nationale waaw si tënk rek lan nañu mën a jàpp comme du jëm si wàccaayu gàmmu dellu si alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam e, Babacar ñu ngi nuyu mbokki senegal yëpp ak adduna bi yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp di sant yàlla bu baax ci taje bii nga xam ne ci ndigalu kilifa yi ñëw nañ def ko fii ci suñu sous-préfecture zone nord ci njiitalu sous-préfet bi ñun itam ñu ñëw ci ndigalu suñuy kilifa yi ñu bàyyi ci kër maam alxaaji ko jiitu ci kilifa di suñu wéjjoor alxaaji Abdou Aziz ak Serigne Mahamadul Munir mi nga xam ne mooy xalifa bi ñu ñëw ànd ak comité d'organisation bi nga xam ne ñooy saytu mawlidu nabi bi nga xamante bii ni maam alxaaji Ahmad Baru Njegen comme ni ko mag ñu bari taxawale ci seeni pénc moom la taxawaloon fii ci kër maam alxaaji muy gàmmu goo xam ne war na toll ci téeméeri at ak fanweer ci édition kon lu toll noonu suñ koy waajal te mu des weer ak lu topp su fekkente ne sous préfet bi ci ndigalu ay kilifa muy préfet bi ak gouverneur dañ ko jox ndigal ci mu def CLD la ñuy wax CLD loolu teg nañu ñoom ay jéego yoo xam ne képp woo xam ne boroom xam-xam nga di nga xam ne lii tegu na ci yoon ñu ciy sant yàlla bu baax nag ndax bi ñu egsee mu fekk fi ñu fekk fi chef de service yi nga xam ne ñoom la concerné yëpp mu woo leen ñu bokk toog ak ñoom ak comité d'organisation bi mbooleem loo xam ne commission la bu nekk ci comité d'organisation bi wax say xalaat wax sa ay bëgg-bëgg wax yëf yi na mu demee woon daaw moom monsieur le préfet ba mu jëlee dafa jox kàddu ñii nga xam ne ñoom ñooy chef de service yi kenn ku ci nekk itam ginnaaw bi ñu waxtaanee ci ñaari waxtu ak genn wàll ñëpp bi ñu génnee seen xel dal na ndax itam xalaatu boppam la bu rafet boo xam ne bi mu ko proposé sëriñ bi sëriñ bi moo ñu jox digal ñu ñëw ci moom waaye réccu wuñu liñ doon ñëwee ci moom gis nañu ne mel na ni diisaay ba daan am ca at yu njëkk ya mu ngi wàññeeku bu baax ñuy ñaan itam diisaay yooyu yàlla na ko yàlla gën a oyofal bu baax moom daal loo ci mën di dégg ci njaal been njaal beenu loo xam ne dañ koy waaj ku ca am daje bu mel ni ak waxtaan ni fi wax ak li fi dégagé wu ci ay résultats loolu sa xel war naa mën a xaw a dal li ci des nag ci yàlla lay doon dogalu yàlla la yal na ko yàlla mottali bu baax a baax ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la ñuy waajal guddeem su ko defee loolu daal moo génn ci jataay bii nga xam ne am nañ ko ak le préfet bi nga xam ne moo nekk fii ci zone noor xam ne moo yilif suñu zone bii ñu dëkk yëpp macha allah nu mu tuddati chef de service yëpp ñëwoon nañ yi nga xam ne ñoom la gàmmu gi concerne kenn ku ci nekk tam la nga wax dal na suñu xel dal na yàlla mottal yéene yi. Euh, gàmmu ñoom ñëpp ñu jël kàddu yi wax nañ seen yéene yokkaat la ñu defoon daaw. mais ku tudd gàmmu dina am ay yenn aspect yoo xam ne mënut a ñàkk wala yi gën a sensible euh, ci si yan fànn ngeen bëgg ren gën a renforcer. waaw xam nga euh, gàmmu ay taalibe ay soppe ay am du jàmm ñooy dajaloo ak réew mi ak état yi nga xam ne moom la réew yi toll fi ñu toll bokk na ci bi nga xam ne gën nañ ko bëgg wala jiital nañ ko ci mooy sécurité. nekk yaa ngi fiy déglu yoo xam li ci ëpp ci wàllu diini lay soso bokk na ci yi jiitu na am sécurité loolu itam commissaire yi nga xam ne ñoo ñu seq ci suñu zone bi bi ñu ñëwee wax nañu suñu comité d'organisation bi ñi nga xam ne ñu yor wàllu sécurité bi wax nañu lañ ci wax daal mooy jàmm moom lum ci gën a dolliku lum ci gën a yokk xeeb nañ ko moom na dal am jàmm am sécurité ñun ñu ñëw ci jàmm fekk sëriñ bi ci jàmm ak taalibe ñu bokk gàmm suñu gàmm kenn ku ci nekk yeewee ku dem sa kër ci jàmm loolu bokk na ci yi nga xam ne moom dañ ci gën a def tarkiis bu baax bi ci des itam ku wax gan ku wax gan wax ay nooy téye gan ñi ak noo leen di yore loolu muy wàllu ndox service concerné yi lu demee ne SDE hydraulique euh, euh, euh, SONES xëy na seen ndaw ñëwul waaye nag ca kanam daañu mën a jokkoo ak ñoom ñoom itam wàllu ndox ndax fu ay junni junni junni ni di daje loolu ndox mu bëri moo fa war a am pour hygiène am fa service national de l'hygiène niñ ko daan waxee at mu jot ñoom kër maam alaaji cent cinquante pour cent sax lañ leen di féliciter ñoom waaw ndax suñu ñëwee danañ defal ñu loo xam ne sax day jortu njortu sëriñ bi jortu njortu yi ci taxawaay moo waral service national de l'hygiène ñoom itam ci wàllu cet ak taxawaay loolu ñu ngi leen ci remercier bu baax du leen encourager bu baax ah, bi ci des wàllu leeraay bi électrification bi am na benn première tranche boo xam ne daaw defal nañ ko ci yeesalaat installation électrique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër Maam Alaaji yëpp ñu teg ko ci loxo yi suñu doom bi nga xamante bii ne moo chargé wu ci wàllu googu ñu koy wax Mamadou Doudou Njëgéen yàlla dogal ñu ngi demandé waat ren autorité yi nga xam ne ñoom ñooy saytu loolu deuxième tranche bi ñu defaral ñu ko ndax quartier bi gën a leer quartier bi gën a am sécurité ci wàllu électrification ndax daaw bi ñu ko defee ku ñëw ci koñ bi wala ku ñëw ci biir kër maam alxaaji ay fan di nga ah fii de moom liggéey jaar na fi am na ko fi liggéey dara loolu itam ñu ciy félicité kilifa yi nga xam ne ñoo yor affaire courant bi di waa waa Sénélec di leen ñaan di ñaan seen kilifa yi itam deuxième tranche bi ñu jàppale ñu ci rawatina nag suñ ñu koy defal it mu teel ndax bu daaw bi dañoo nag bëgg am mu ngi des fukki fan wala du ma juróom-ñetti fan ñu tàmbali ko xale yi dañuy liggéey guddi ak bëccëg bu ren bi suñu sañoon ñu ngi leen koy ñaan suñ ñu ko accordé du ñu defal deuxième tranche bi na gaaw loolu itam bëgg nañ ko ci sécurité alimentaire waxtaan nañ ko léegi ak seen ndaw ah, sëriñ bi li mu gàddu ci ci ci ay gan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax du ceeb rek kay gàmm waaye nag ku ko am itam pour mën ci teral say gan loo ci am di ko mën a jëfandikoo bu baax ñoom itam wax nañ leen dalal nañ suñu xel ci ne mbooleem quota boo xam ne jàppale woon nañ ko kër maam alaaji àndaan ci ci kilifa yi ci xalifa bi ci ñi nga xam ne ñooy population yi quota yooyu suñu ko mën yokkalul duñ ko wàññi. suñu si dispensaire ñu ngi ciy dox boobu ba tey. xëy na dafa am ay démarches yoo xam ne ba tey ki nga xam ne sax moo yor responsabilité dafa tukki dafa dem France moom la ñu wax Cheikh Fadel waaye nag Cheikh Tidiane bi ko wutu woon mu ngi fi Cheikh bokk na ci li gën a tax mu tukki ci démarche boobu nga xam ni ci la nekk pour ñu taxawal poste de santé bi ñu doon ñaan ñu ngi salaat demande bi autorités yi nañ ñu ci taxaw. ndax sëriñ bi ak njaboot gi ak taalibe yi ñoo ciy def seen i pexe di ci def seen i kartan di ci def seeni xalaat mais nguur moo gën a gaaw ci lool te loolu suñu yàlla dogaloon ñu daal di ko fay réaliser dinañu defaral lu bëree bëri rawatina ci wàlli fan yii nga xam ne mooy fan yi gàmmu ki waaye nag ñu ngi ci ba ñu ngi ci ba tey alhamdulilah. sëñ bi effectivement président la république li ko waroon def na ko mooy xalaat na ay këru diine këru diine yooyu mu xalaat xalaat na ci kër maam alxaaji kër maam alxaaji nag dafa am benn wuute ak dëkk yu bari ndax moom dafa nekk en plein centre ci biir dëkk Thiès la nekk problème d'espace posé wu fa ba tey ndax même ñun suñu njaboot léegi pour ñu am ay kër faw ñu génn kër maam alaaji wuti moo waral projet boobu président yebal na ay ndaw ñu ñëw ci xalifa bi Serigne Mouniru waxtaan ak moom problème bi posé wu fi ñu toll nii mooy problème d'espace mais la xam ne ñoom naan nañ ko ca tënk ko teg ko mooy mi ngi xaar mu Mouniru loolu moom moo xaw a am retard waaye sedd nañ ñu président jox nañu la muy jox kilifa diine yëpp. yabal na fa ndaw mat na at ñu toog di ci xalaat ay ay ay technicien ay géomètre ay ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey waaye mbir mi dafa yombewul ci bu fekkonte ni Kër Maam Alaaji dafa nekk ci àll ba xam ne dañuy ñëw rek xotti ne defar leen fii loolu rek mooy blocage bi waaye ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey itam te ñu ñaan sàkku ñëpp ñaanal ñu yàlla yombalal ñu foo xam ne dinañ mën a def li nga xam ne moom lañ fa yéene